li nga xamné ne fi tay dafa nek mbekté bu reuy ndax ñun Sénégal ak réewu arab yi ak umma islamique bi dafa am kóllërante ak jàppale go xamné mom mo ci dox ambassadeur république euh, euh, Émirat arabes unis mu ñëw fi maire dama ci amna ci mbégte bu reuy ñew nak fekk tamit mu def li nga xamné ne ci seen beut muy lo xamné musul am fi ci Rufisque te gëw tamit ci département de Rufisque lu melni amna fi lepp lo xamné maire bi mën na ci dina ci jappalé ñi amnañu sax ndax du tay lañ ko def mais nak kenn duñu dimbali ba pare ñun ñu téye suñuy loxo lépp loo xam ne mën nañ ko ci aussi dinañ ko ci def. xaalis bi nga xam ne moom lañ ci def mooy effectivement li commencé si jënd terrain bi équiper euh, construire et équiper loolu daal ñu ngi ko xayma ci ay 250 millions. comme ni ma ko waxee ñaari phase la premier phase bi moom mooy li nga xam ne moo aju ci santé xale yi beneen phase ak euh, santé euh, maman yi xam nañ ne ñaari.

mais am na nu mu gën a gaawee li des ci équipement bi dina ñëw bu ñëwee rek xam nañ ne suñ euh, gan gu euh, tedd gi di monsieur l'ambassadeur bi nga xamante ni moom moo moom moo waral ndaje bi ñu def tey. am nañ ne moom ci kàddoom incha allah suñ direction général dina gaaw ci ubbi ko nu mu gën a gaawee.